lii warul am xëccoo man de buñ ma buggoon tuddee eh, nit dara mane du ci bëgguma bëgguma damay eh, duma ko eh, duma ko ko tuddee parce que nit boo koy tuddee da daay fekk mu neex ko nañ bay affaire politique nañ doxal yoon teg ko ci raay bi ancien président bi waxoon na départ ba mais bi mu wax il était président de la république C'est une institution. Mon programme est euh, Aéroport Jazz, qui a accordé, euh, qui, approuvé, euh, Macky Sall a approuvé en tant que Premier ministre. Hein? bu ñu teg ko mu ne comme euh, Blaise Diagne l'a koy mais il y' a pas de euh, de tergiversé nañ ko def teg teg ci yoon moom ko en tant que président buñ buñ changé l'administration c'est une continuité le bon mun nga koo mais qui Blaise Djang ku Djang ku Djang tubaab Djang histoire war nga xam Blaise Diagne li mu liggéey Sénégal dafay ñaaw ñu déshonorer. ko sa famille nañ bàyyi noonu Mom neexu na bàyyi c'est pas la fin du monde yeneen ba Ablaye wat joge fi mais bu ko nexé mu tuddé ko euh, benn route ah wala mu tuddé ko euh, benen euh, projet bu de grande envergure loolu la am lu may wax nañu calme l'état c'est une continuité bo fi jógee keneen na fay nek nañu set li neex ni ñi ñu def ko